dina yombal dunu doomu aadama yëpp ci zaar ci baatin waaw tey jii nag dañ leen a ñëwoon indil leen secret boo xam ne secret boo am solo la macha allah muy secret boo xam ne wàllu nopp la nopp bii nag yàgg nañu dugal ay nopp waaye nopp bi nopp la ci nopp yi nga xam ne yàgg nañ ko fay dugal waaye nag uute na ah, uute na bu baax a baax a baax a baax ndaxte nob doy waar la nob am doole la moo tax yow mi nga xam ne yow yaay déglu wala ngay seetaan vidéo bi bala nga koo jëfandikoo na la leer ne ki ngay nopp wala ku ngay nopplu yittee na la ngir yàlla rek tax nopp bi incha allahu rabbi képp koo ko def dina la topp loo wax dana wax waaw loo wax déedéet dana ci génn ba mu set wecc incha allah waaye nag comme ni leen ko waxee rek defuñ di jëflante ak ni yéen ci maanaam wàllu secret yi defuñ ko ngir nit ñi di lor kenn utuñ ko itam di ko séddoo ak yéen ngir kenn di ci lor kenn ndaxte ñàkk bëgg nit boo ko defee aajuwul ngay def dara ngir di ko lor bu nekkee ne yitteelu la ndax koo yitteelul rek am na ko ko yit am na koo xam ne yitteel na ko moom kon yow mi nga xam ne nit yitteelu la bàyyi ko keneen ki nga xam ne moom yi teel na ko moom bu ko defee àddina bi mën a nekk ci jàmm waaye nag bëgg jël sa jëkkër noob ko ba loo ko wax mu def ko bëgg a jël sa patron noob ko ba loo ko wax mu def ko te bëggoo liggéey bëgg a jël sa borom kër noob ko ba loo ko sant mu def ko loo ne ko bàyyil mu bàyyi te bëggoo sëy defoo ko lu dal tàqale ko ay mbokkam noob nit ba waxtu woo ko loo ko laaj mu jox la ko loolu baaxul te nopp bi mën na lu raw loolu mën na lu ëpp loolu boo ko defee ki nga ko def lépp loo ko laaj lépp loo ko wax loolu lay def loo na waaw dana wax waaw loo wax déet dana wax dana génn bam bam set wecc boo ko ko defee képp ku bëgg ci moom sax dara bu ko jotee bu jaaru bu jaaree si yow mu sotti lépp loo bëgg rek incha allahu dana ci dox moo xam mu nekk sa patron wala ku mënti nekk rek incha allahu boo ko defee nopp bi bu soobee yàlla yàlla dana la ko tàggatal ba lépp loo bëgg ci moom rek di nga ko am insha allahu waaye nag comme ngeen ko waxee kuy jëf lan kuy jëfandikoo secret bi na nga jëfandikoo ci lu mhm. koy jëfandikoo rek na ko jëfandikoo ci lu gën secret bi nag comme ni ngeen ko gisee noonu mooy ñaari baat yooyu nga xam ne moom mooy wala qad hammat bihi wa hammat biha wala qad hammat bihi wa hammat biha ni ngeen ko gisee nii noon nga koy bindee noonu nga koy bindee soo ko bindee dangay jël turu ki nga xam ne moom ngay noot moo xam sa jëkkër la moom nga bëgg loo mu def ko turam moom ngay bind ci suuf yow sa tur nga bind ko ci kaw sa tur ci kaw nga koy bind miim bi ci suuf itam noonu nga koy defee sa tur ngay bind ci kaw turam moom nga bind ko ci suuf incha allahu soo noppee nga defaat ci beneen exemplaire boo xam ne dangay bind sa tur ci kaw ak sa tur yaay bind turam ci suuf xanaa bi nga xam ne moo nekk ci suuf moom ngay bind turam ak tur yaayam soo noppee nga def nga defaat ci ñetteelu exemplaire bi bi nga xam ne moom sa tur moom ngay def ci kaw kese def turam moom ci suuf soo noppee da nga leen di boole ñoom ñaar ñëpp ñoom ñett ñëpp ñetti exemplaire yëpp nga def ko li nga xam ne moom mooy saafara saafara nga koy def nga def ko ci loo xam ne luy tàngal la nga tàngal ko ba mu tàng nga teg ko ba mu sedd nga tegaat ko ci kaw fi ngay tàngalee moo xam gaz la wala matt wala këriñ nga tegaat ko tàng nga teggiwaat ko teg ko ba mu sedd noonu nga koy def ba mu mën ñetti yoon. soo noppee nga sangoo ko lu toll ci quinze jours moom nga koy sangoo incha allahu képp koo ko def lépp loo wax waaw dana wax waaw loo wax déedéet dana wax dana wax déedéet am na itam téere boo xam ne moom la war a na téere bi nga xam ne yow mi nomb yow yaa koy takk ci sa ndigg incha allahu rabbi boo ko defee def ko ni mu waree incha allahu yow ak sa diggante kooku nga def moo xam muy sa borom kër moo xam muy sa patron ak ku meunti nek incha allahu ci sa ay waaw rek lay wéy du wéy ci waaw kenen ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaanal yàlla di wax na yàlla yàlla defal leen jàmm defal ñu ko yàlla yàlla may leen jàmm may leen wërsek ta may ñu jàmm may ñu wërsek yàlla yàlla fessal seen xol ak yàlla ta fessal seen poos ak ak adina ndax bu poos fessé ak adina xol yi fess ak yàlla du yàq ci suñu mbir yi dara du yàq ci suñu diine dara du yàq ci suñu dudu dara waaye nag li bon mooy fees poos yi fees ak àddina xol yi fees ak àddina wala poos yi fees ak ñàkk xol yi fees ak àddina ndax nit ki bu sa xol feesee ak àddina te sa poos dara nekku ci mu ne danga ko def ngir am te doo ragal dara doo xam li diine tere doo xam li diine digal nit ki itam bu nekkee ne sa xol dafa fees ak àddina te sa poos fees ak àddina maanaam nga am lu bari ci ay njaaxum rek ngay nekk ndax doo def lenn loo xam ne da ci xool yàlla ah yàlla ñu ci yàlla musal waaye nag doomu aadama bu sa xol feesee ak yàlla te sa pose fees ak àddina fees ak xolu yàlla boobu du la tere yàqal dara ci sa dund waaye tamit dana lay fees gi sa pose fees dana yombalal mbir yi nga xam ne moom lañ digle muy digle yeeg topp yi nga nekk ci ñu nem gënee ñi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla defal loolu yàlla ñu yàlla may fan wu gudd ànd ak wér yàlla nañu yàlla may dégg ak topp di wax ne ñi ngi sant ñi ngi gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.